d'abord may gërëm rek Mame ci li nga xam ne dox na ko ba mu yegg fii di ci euh, gërëm di sant aussi président Macky Sall mi nga xam ne Mame Matar wax na ko moom moo jël initiative o Mame Matar ne ko lii doy na waar il faut que ñu trouver ay solution donc bu ñu fi toogee tey yàlla ak président Macky Sall la parce que moom moo ko booleeg waa ONFP pour ñu trouver ay solution mbir mi nag li ko guddal te gàttal mooy ñu xam ne solution yi mën naa nekk c'est possible ONFP dafa yàgg di former formation mooy métier domaine boo xalaat rek ONFP mu ngi ci former ndaw yi leen si tàggat kon nag buñ ci ooyee Ultimement Matar Oye, sur directive du président de la République madame Mariama saar ministre yàgg ci taxaw di ma wax ne projet boobu na nga fexe ba mu sotti donc dañeen ci gërëm di leen sant xale yi nag euh, waa ONFP euh, gis nañ leen waxtaan nañ ak ñoom ku ci nekk posé nañ ay question question yoo xam ne dina tax ñu xam fi nga jógee lan nga jàng li waraloon nga bëgg a tukki loolu yëpp waa ONFP ñi nga xam ne technicien lañ toog nañu xale yi ba waxtaan nañu ak ñoom ba xale yi wax nañ leen seen bopp am nañ liste yi léegi nag te ku ci nekk aussi xam nañ li nga bëgg fan nga bëgg ñu formé la domaine yëpp léegi répertorié nañ ko xam nañ kan nañu war a mën a commencé liggéey bi liggéey bi nag warul nekk rek ñu réunion rek mu jeex comme ni ko ma Matar waxee il faut faire dans le rétroplanning bu ñu fi génnee léegi incha allah donc il faut faire dans le concret il faut être parce que ni ko Mame Matar waxee euh, affaire migration fu nekk lu ñuy xaar mooy trouver ay solution nekk ku rek di wax di sànni waaw ah, nekk ku rek di ay ay ay discours yërmande di yërëm xale yi lépp loolu lépp am na loolu weesu nañ ko fi nekk nii mënu see ñàkk nag waaye nag il faut trouver des solution te solution yi lu commencement c'est la formation il faut que ñu forme xale yi tàggat leen bu ñu leen tàggatee ba pare nag léegi nag il faut que ñu orienter leen ci ay structures yoo xam ne ñoom ñoo leen di financer te loolu nag yëpp état moo ko créé état moo mettre en place ay structures yoo xam ne ñii dañuy tàggat ñii di financé kon nag bu ñu leen tàggatee ba pare ba xam ne tàggat bi mokkal na dinañ leen jox ay lijaasa ONFP ne bu la joxee lijaasa loolu ñu tuddee titre de qualification lijaasa bu am solo la parce que c'est reconnu par les branches professionnelles maanaam mën nga koo jël di ko liggéeyee comme ñi nga xam ne dañu am ay diplôme dans le dans le secteur classique et ça c'est important c'est bon à savoir loolu mooy avantage comparatif bi nga xam ne bu la ONFP tàggatee di ko am te bu la boo tàggatee ci feneen doo am waaw ñu suñu lijaasa dafa nekk lijaasa bu ñu reconnaître ndax fi muy jaar moo tax ni koy saytoo ba mu nekk lijaasa euh, amul lu ci manqué amul lu ci manqué loolu moo tax donc ONFP daa dugal na ci loxoom moom ak Mag Matar ak maire yi vraiment ñu tàggat ndaw ñi ñu nga xam ne dañoo jógee bitim réew ci vraiment ay conditions yi difficile tàggat leen xool li ñu soxla ñu tàggat leen ci mettre leen maintenant en relation avec ay structures yoo xam ne dinañ leen financer te ngeen xam ne bu ñu la financer ngay liggéey tey Sénégal boo koy xool ñu ci gën a bëri ñu leen tudd tey si wàllu alal du salaire moo leen ko jox auto emploi moo leen ko jox waaw il faut qu'on en revienne ko fondamentaux état mënul joxe ay liggéey ku nekk loolu aussi il faut que parce que am na ñoo xam ne xëy na dañu dugg si réseaux sociaux yi di gëmloo nit ñi pour le mettre en mal avec l' état le problème ne se situe pas à ce niveau là état day créer benn environnement pour permettre à la jeunesse permettre au femmes d' avoir un environnement boobu mooy lan mu former la tàggat la ba pare nag mettre la en relation ak structure yoo xam ne dañuy jox ay jumtukaay pour lii nga xam ne dañu see tàggat nga mun ci yëngatu ba mun see teral sa bopp teral sa réew donc l' état crée loolu moo tax ma ngi gërëm monsieur le maire Djibril Faye parce que eh, ni ma waxee ni xam na ne moom il comprend la mission de l' état il comprend aussi la mission de quelle des collectivités territoriales noonu la war noonu la war a demee en tout cas maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm aussi les migrants Abdou Khadre maa ngi lay gërëm di la parce que comme ni ko Mame Matar waxee yow tu que ce n'est pas le chemin qui est difficile mais c'est difficile quel chemin nit ki toujours de tout temps foo mën dem ci àdduna ñi nga xam dañoo xëy réussir dafa am fu ñu jaar nit ki nag boo xëyee réussir nit ñi li ñu gisal mooy mooy réussite bi waaye duñ xam fi nga jaar amul dara looy am ci àdduna lu mun a taxaw te jaarloo fu métti nga yëg ko wala nga ñàkk koo yëg wala nit ñi yëg ko wala nit ñi nit ñi bañ ko ñàkk yëg kon nag nañ jàpp ne lii problème la waaye c'est des contraintes que nous devons transformer en opportunité te loolu mooy li ñu fi war a euh, loolu moo war a jotaay bi tey man ak Mac Matar vraiment ñu ngi signé convention léegi au-delà du problème de Dubaï on va prendre en charge n'est-ce pas le problème global nest pas qui touche les migrations dans leur globalité donc yàlla ñu yàlla jàppale on y invite tous les acteurs de l'État collectivités territoriales les structures de financement vraiment nañ xam ne que ñëpp benn entité lañu moom mooy état et on a le devoir d'appliquer et de faire respecter les directives du président de la république ba nga xam ne def ñuy soññ ci vraiment ñu jàppale ndaw ni incha allah te nañ ko def yàlla yàlla jàppale.